parce que ministre bu fa nekkul te directeur de cabinet ne fa DAGE bi ne fa ñun suñu liggéey liggéeyu anticipation la woon fexe ba équipe bi bu demee am fu mu dal nekk ci condition li ñu war a def ak ñoom ñu def ko ba ñu duggee ci terrain bi seen xel rek ci football lay nekk te le fait naan loolu ñëpp d'accord nañ ni état du Sénégal def na li ñu war a ñun bu ñu fa newoon duñ dugg ci terrain bi duñ toog ci bande tout tàccu la ñu mën a def ak ñaan te ñu koy def fii ñu nekk lii bu jeexee nag dinañ leen fekki. Je vais lancer un appel aux Sénégalais def critique baax parce que nous sommes liggéey il faut am nit ñu parce que si nous li ñu yéemee tax ñuy critiquer nous solidarité accompagner l'équipe nationale accompagner le staff technique surtout le coach parce que l'équipe équipe bu sommes ci fa muy Nous devons supporter Covid 19 nga xamante ne CAN bi c'est une CAN particulière terewul objectif bi ñu am ñu ngi ci ba léegi mais na nit ñi continuer nekk solidaire joxante loxo ñaanal équipe bi pour que fii ñu jëm ñu gën mën a am yeneen i ndam te baisse de forme taxaw bii nga xamante ne nit ñaa ngi ciy jaaxle yëpp nekk loo xam ne dañu koy fàtte ñu continuer efficace ci lii nga xam ne mooy Coupe d'Afrique des